Libération yéene kaay ne nit ñi kay tiit nañ lool ci aéroport international Blaise Diagne waaw dama ne la benn roppalaan ngoo xam ne day daa bàyyi yoonam allahu akbar dama ne la ba dañ koo mujj tëj dee lu tolloo fukk ak benn ci ay doomu aadama am nañ ca ay gaañu-gaañu te kat ñeent ya ay gaañu-gaañu yu mittee mitti la te accident ba day ah ab ndox mu fëtt day moo ko indi day le témoin yéene kaay ne moom kay nees tuut musiba am ndax lu tolloo juróom-ñett fukk ak juróom ci ay doomu aadama day ñoo nekkoon ci biir avion allahu akbar am na ci benn soxna soo xam ne day palanteeru avion ba la fëkk laa la wax daal di tëb waaw ubbi nañ ca enquête de aéroport ba kay dañ koo mujj tëj ay waxtuy waxtu laa la wax avion dematul dikkatul am na koo xam ne day dawal ko to avion la woon ancien waaw nee na gis nga nag avion yi wàcc seen yoon yi lée nekkul lu bees de lu bari la évidence yéene kaa ne Transair Air Sénégal waaw ñoo bokk jikko de musiba mbaaba kumba rek les fois yéene kaa ne moom kay ne stut musiba mbaaba kumba am laa la waaw ndax booy bilee 737 ba waaw bu 300 Transair bi ndekete ba ma koo doon dem de Mali maa la ko wax daal di wàcc yoonam allahu akbar lu tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay passagers day ñoo nekkoon ca biir fukk ak am ci ay gaañu gaañu laa la wax ñeent ñi moom ay bokk na ca kenn koo xam ni kon ma nga doon dawal roppalaan nga te gis nga avion bi ah Roumanie la jóge de Roumanie ñi ngi ci jot daanaka 2014 Dakar Presse de accident bi ci aéroport international Blaise Diagne waaw nees tudd rek musiba am de laaste ñeenti kay ñoo ci am ay gaañu gaañu mittee mitti sax waaye ña gaañu ñëpp boo ko compté fukk benn la allahu akbar terminé yéene kaay ne aéroport laa wax musiba am parce que benn roppalaan day décollage am bala ratey allahu akbar ay doomu aadama yu bëree bëri kon am te ay gaañu-gaañu laa la wax sursu anée man kay maa lay nittali mbir mi ni mu demee xanaa xamoo ne avion bi da doon jéem naaw bu njëkk ba mbir mi yàqu ñaareelu yéegam ba nag ca la wàccee yoonam ba de te li lépp mooy avion Air Sénégal bi nga xam ni kon moom moo waroon yóbbu doomu aadama yi day waaw daa tardé Boeing transfert bi lee ñu jël ko dernière minute xam nga kooku waajaluñ ko moom transfert waaw moo taxawee taxawaayu sapeur pompier laa la wax waaw parce que nag ay volu Air Sénégal yu bari moo leen di faral di yóbbu ci sous région fukk ak am ci ay gaañu-gaañu laa la wax bokk na ca ñaar ci ay bébé allahu akbar nees tut xale yi ñàkk seen bakkan yéeni kaa yi daaw da càmmi ne gis nga roppalaan gi nga xam ne nees tut musiba mbaa ba kumba kon am waaw dañ koo tuumaal ni day daa amoon ay pande waaye patron bi <laughs> parce que commandant Alioune Fall nee na avion bi dañu koy xool nañ ko surveillé nañ ko waaye nag avion yi aussi ay machine reñ la machine lañ rek de problème technique nag mën naa am saa su ne muy Air France muy Air Sénégal wala Air Bamako avion yëpp dañuy faral yenn saa yi di wàcc seen yoon commandant Aline Fall yemu ca ndaxte nee na il n'y a pas eu de décollage xanaa xamoo leen ne bu dul woon ak ñin Air Sénégal kon arrêté na bu yàgg a yàgg fukki at ak juróom a ngi nii ñu ne fi waaye Sénégal gii gaw ma ne di ngeen fi gis tey ku ñu tane Transair rek ci ay vol yu régulier lii quotidien ne sut musiba mbaaba kumba am laa la wax réew mi quotidien ne dëgg da guddi ga day moom yàggoon na moom box fab li ne guddi ga kay aéroport ba gars yi paniqué woon nañ de jaaxle lool lool lool le soleil yéene xaay ne nees tut musiba am de lu tolloo fukki doomu aadama ak benn laa lay wax nii am nañ ci ay gaañu-gaañu révélation yéene xaay ne trans erati la di trans erati la di ñoomati la di leesi ko yéene xaay ne kay doomu aadama yi kay musiba mbaab musiba mbaab ndekete ab panne hydraulique la de le bureau d'enquête et d'analyse waaw moom la ñu sant na ngir mu ubbi ca kon ab enquête laa la wax ca avion ba maa la ko wax blessé yooyee yépp génn nañu benn ci dawal koto avion yee daal nga xam ne daa damm moo des kon ca hôpital ba moo taxit muy air Sénégal bi dem France air France Royal Air Maroc tabbi ñoom ñëpp am nañu ay retard yu garaaw li garaaw kay mooy suuf a waaw fii am ay coow suuf ci Sénégal gi lée gis nga Dakar Thiès ak Sédhiou waaw ñoo jël coupe bi de maar di Italie ndaxte lu ci tolloog ñetti téeméer ak juróom ñaar ci ay cas yoo xam ne day indee guñ ca solution de dama ne leen Dakaaru Njaay jël Jóob moo jiitu laa wax lu tolloog juróom fukk ak juróom-ñett laa la wax ñu le ci ay coowal suuf allahu akbar Thiès daal di cay topp lu tolloog fanweer ak juróom ci ay cas yoo xam ne day lijjanti wuñ ko demal Sédhiou lu tolloog vingt-neuf yoo xam ne kon fi mu nekk ni lée li jënteeguñ Allahu akbar waa Ziguinchor soora bañ ak Matam ak Saint-Louis Diourbel ak Kaffrine ak Louga ñoo mujj te coow yoo yee man ke taabalu ba siru jomaay jaaxeer fay laa la wax libération yéene kaay ne ndaataatal la ku ndaata noos koo xam ne ci wàllum suuf si lee waaw moo am na ci réserve bu Bandia bee GK bu Sédhiou Relais Fleury ak Kandiang Cour des comptes day nee lu tolloo juróom-ñeent fukk ak ñett ak genn wàll ci ay hectare moom lañ fay quatre-vingt-treize virgule cinq cent allahu akbar Bandia trois mille cinq cent hectares ay laa illallah RBSARL te waa ji la ko waroon joxe ca xaalis yëpp dafa ko de du nguur gi du commune yi nga xam ne maanaam ñoom ñoo moom kon suuf soosé dara mu Mali dara la ci deful laa la wax demal ca Sédhiou rek ak Relais Fleury soixante hectares taxe annuelle yi ba léegi ni lée concessionnaire ba daa fàttee fay di zone de chasse bu Kandian trente mille hectares allahu akbar la ilaha illa allah la war ca cahier de charge defu ci dara am na lu mu violé évidence yéene kaay ne tong-tong ba ca mbuur kat day waaw Abdoulaye Seydou Sow argumenté na de wax na de Abdoulaye Seydou Sow day ci bés bi le jour waaw nee na gis nga Idrissa Seck mi ñuy wax ni lée waaw du dëgg Idrissa Seck kay ay investisseur lu fa indi laa la wax yow lan mooy ndeyu ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi de ñu jox ko lu tolloog ñeent hectare ak genn wàll mécanisme yi amuñu man Abdoulaye Sow lii lay laaj Dakar waa ne la am kon te kër Moussa googee waaw askan wa day la ñu bëgg daal mooy nguur gi ci boppam nañ ci wax yoor yoor yéene kaay ne pàccoo foncier bi nga xam ne day mais la xaw aéroport international Léopold Sédar Senghor waaw dama la amul fenn vox populi ne coowal soo suré coowal su siri baax na mën naa indi musiba mbaaba ku ma de ci quatorze régions yëpp nag laa la wax waa Grand Place ne maire Tivaouane Peulh ba day Papis Diop waaw ginnaaw bañ <coughs> indi na ci ay tontu de parce que Papis Diop nee na nguur gi ci boppam bi mu bëggee wutal nag sinistre yi fa ñu dëkk la woo soka woo tamit DMS ngir wàllum dëkkuwaay waaw ci noonee la nguur gi yëkkatee lu tollu trente-neuf hectares cinq cent daal di koy jébbal soka bekk vingt-neuf hectares daal di koy jébbal DMS Habitat te ca jamono joo jee Papis Diop mii nekkagul meeru ci yoon pël la la wax waaw parce que moom juillet 2014 lañ ko fal te bañ ko joxee suufam soo see junni ak juróomi téeméer ci ay cocotier laa lay wax nii la fa samp loo ëpp juróom-benn fukk ci ay doomu aadama di fa liggéey monsieur le maire Papis Diop yamu ca ndaxte nee na gis nga moom ay lotissement yu jaarul yoon waaw samp ay bërëbu liggéeykaay yu mel ne ay hôtel yooyu yee moo ko gënal soo jógee ci suuf si lee demal ca wàllu napp ga bés fi la journée président Bassirou Diomaye Diakhar wurin ba immigration clandestine bi waaw laas ne ko may ma ma yeggali may na parce que jomaay nee na leen audité nag wàllu napp gi lee def xam ne moom la ñu signé ak licence yi fan la toll mais Jean-Marc Pisani bu union européenne waaw nee na gis nga union européenne kat amul dara lu muy nëbb laa la wax parce que nag ñi ngi fay ay milliards yi milliards at bu ne cinq cent quatre vingt la tubaab bi fay termine yéene kaa ne Abdoulaye mi ne ministre woon waaw urbanisme wax na mbir de aha parce que Abdoulaye Sow nee na xanaa xamoo leen ne Macky Sall mi ne dafa naroon a tànn beneen candidat ci biir campagne la ilaha illallah Abdoulaye Sow ne Macky Sall convoqué na ma wax ma lan la woon kii di Amadou Ba Abdoulaye Sow ne am na lu xew de diggante Macky Sall ak Amadou Ba yéene Covid bi le kan mooy protéger dealers yi moo jaaxal ñëpp de parce que ñi nga xam ne ñooy ay délinquants financiers caxat-caxate suñu alal ji ci jamonoy corona boobee mais ñum rafuñu tiituñu déedéet Walf Fadjri ne Ousmane Sonko day waaw dekkal na Jean Collin day aha maa la wax li le kàttanu premier ministre laa lay wax ni le la waa ji la dépêche yéene kaay ne waa jàngoro ji cam ñu naan Crimée Congo waaw découvrir nañ ko de maar day taali kaay ne dëgg bi 24 heures yéen a kaay ne gis nga napp googee ngeen doon wax sànq waaw ba léegi nii lee mi ngi wër yoonam napp gii problème mu kese la <laughs> waaye lu problème bi bëri bëri bëri bëri bëri bari bëri bëri bëri bu leen fàtte ne suul gaz du ko tere xeeñ dawit taxulaa rëcc parce que Sonko jumaay te jumaay mooy Sonko boo paree ma ne la alaaji tëjal